Amady day fàttaliku góor yàlla Cheikh am na loo ma ci mos a natt nii lu mu leboon dara ba nga xam nangutu ko gis. Hmm. jikko ji rafet ji mu ko woon mu demee ti ñu wax Fallou Ndiaye la. Fallou Ndiaye du daan jàng tubaab la woon comme nii noonu lool. Hmm, xamoon naa ko waaw boole ko nag ak nitam. Hmm. muy toppatoo ay assurance ak lu ci wàllu administration yooyu. bu mu miinee nag mu leboon ko ab liggéey. xam naa yéene woon na ko fay nag waaw mu leb ko di ko lewee nag bor ba xaw a yàgg mu am kersa nag ñëwatu fii sëñ bi nag fu mu gis fàllu ma ko boole woon ak moom laaj ko ana ko waajal mu ne ko nañ nañ ko seeti nañ ko seeti waaw ñu ànd bu ñëwee ba ci kër waaji nag sëñ bi xaar ko ci oto bi waaji fàllu dugg ne ko sëñ ma ko laa laaj waa ji jaxasoo loolu jaaxle daal ndax xel ci bor bi mm-hmm. mu fexe ba man ma ne ko ba indi ko rek Hmm. tàmbalee wax di leeral waaw di leeral ca yooya ak yooya ñu ne ko déedéet loolu suñu yëfa sax ñoo ko moom boo yëgatee ne ñu ngi fi sax nga ñëw bi waa ji nag xel mi tàmbalee daal ba mu firigu nag bi ñu tàggoo nag boo dem nag mu ne ñu ci oto bi waaw da ngay seet ñàkk sa alal ñàkk sa waay balaa caag nga ñàkk sa alal rek loolu waral na daal waa ji firikuwaat ba seen diggante wéyaat ci doomu Sëñ Tuubaa kenn xam si moom daa rafet jikko te wax xoolal lii rek jàngale mu rëy rëy ci yàlla ko yàlla fayal tas ci barke daa am kenn ci waa këram ku ma doon nettali dafa am ñu mosoon a luye barab def fa école di fa jàngale xam naa nag ba mujj gi nag ñu amee boroom kër gi ay ay ay arrière daal te ñooñu sax bokkuñ ci tarixa bokkuñ yoon yi waaw ay ay Ibaadu Rahmaan la mm-hmm. borom kër gi taxaw leen bëgg leen a génne nag te boobu année scolaire bi sori. ñu hmm. xam ne buñ nekk génn maslaa daal moo leen ci mën a génne. Hmm. ndax amaat feneen dana leen jafe. am ku leen wax ne da ngeen gis suñu mot la moom. Hmm. ñu jàmbat ko ba mën leen wax da ngeen gëstu ba xam ndax borom day sànq barab ñoom boobu luñ fayee rek luñ bëggoon gën ci dimbali. bañ ko waxee borom kër gi xam naa ne moom mu ànd ak loolu jubu ko daal. ñu dëppoo ba sëñ bi jënd ko ba noppi. def këyit yi ci pour Azhar mu leen waaw defuñ ci lu gën jàngal jàngal te fii yéen a ngi ciy def loolu rek mën ngeen wéy di ci nekkandi loolu noonu noonu la ñu wéy la loola nga xam ne fayatuñ waaw fay déet moom ki leen a bàyyi loolu rek seqtal ñoom weer moom seqtal ñoom weer nekk leen fi di jàng di jàng te fii ak yéen a ngi defuñ ci lu gën loola fii yéen a ngi na cee ci jàng jàng jàng jàngale mu xóotal foofu defalu ko ab taalibeem waaye la muy xool mooy ab jullit muy jàngale diine diine lislaam moo fa ne di jàngale kon looloo ko ñoroon bu bàyyi leen ko ne li ko yéene ngi jàng defuñu fi lu gën jàngale waaw jàmm solo mel ni yàlla mosu doon ci kër la kër kër yi waaw euh,